الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه bokk juliti assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñoo ngi leen di nuyu eh, di leen ziyaara di leen ndokkeel di leen sant di nuyu spectateurs yëpp ñi ngi xam ne ñoo ñuy bàyyi xel ci Darmanko TV lëkkaloog Darmanko FM maa ngi nuyu kilifa diini yëpp di jagleel nuyu ak can borom kër gi Cheikh Amadou Mansour di ñaan yàlla borom bi subhanahu wa taala mun na suñu jaamu yàlla mbokk yi ngeen dellusiwaat ak yéen seen jotaayu tafsir alquran al karim ngeen ci ànd ak seen mbokk Moustapha Mbacké Diouf ñu nekkee nag yéen ci suratul fatiha di saar yi nga xam ne mooy lay alquran al karim jamono ak yéen ci iyyaka na'budu moo yow yàlla dong yow lañu war a jaamu wa iyyaka yow yàlla kat nasta'inu yow lañu war a sàkku ndimbal yooyu yàlla moo ko jagoo jaamu moom yàlla rek lañ koy def eh, xëy nañ dem ba eh, doomu aadama ci ak jaxasoom ci ñàkk jàngam ci ëppalam xaabaabalam dana tax mu jël ak jaamu yàlla eh, askanale ko doomu aadama waaye suñ mag ñi de yàlla yàlla fay leen ñoom yàlla rek lañ doon jaamu di ko jaar ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne ihdina sirata almustaqim yow yàlla yàlla nañu jubale ci sa yoon wi nga xam ne mooy siraat almustaqim muy sa yoon wu jub wii ihdina yow yàlla yàlla nga ñu jubal as siraat almustaqim sa yoonu dëgg wi mooy yal na ñu saxal ci yoon wii nga xam ne yonent yi alayhimu salaatu wassalaam mag ñu baax ñu yonent yi alayhimu salaatu wassalaam ci la ñu nekkoon wajaalna mimman salaka tariqal muqarrabin yow yàlla yàlla na ñu teg ci yoonu gaañu jub ñu ne ihdina sirata al kon bi nga ne iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in rek mooy xamal nga yàlla na ko yow lañu jaamu ndimbali ci yow lañ koy sàkku ci nga ñëw nag dal di ñaan ne ko nag suñu borom nag lii ma la wax nag dama bëgg nag nga teg ñu ci yoon wi nga xam ne mooy siraatal mustaqim bokk yi fii it am na lu ñu fi jàngate ihdina siraatal mustaqim ndax waxut ne yow yàlla jubal ma ci yoonu siraatal mustaqim danga yàlla yàlla ñu jubal ñun ñëpp loolu mu ngi jàngale li ñu wax al ittihaad muy muy bennoo ndax bi ngay ñaan jullit ñépp nga ñaanal yàlla teg leen ci yoon siraatal mustaqim waaye waxoo na yow yàlla teg ma ci siraatal mustaqim loolu li muy tekki mooy eh, égoïsme baaxul muy ananiya muy sa bopp kese lislaam bëggul loolu lislaam li mu wax mooy wa taawanu alal birri wa taqwa nañu dimbalewante ñun ñépp siraatal ladina anamta alayhim yoon wi nga xam ne moom nga xiiwale gaa ñu baax ña muy yonent ya gaa yu dëggu ya ña dee ca xare ak ñi nga xam ne ñooy saalixiina ya nit ñu baax ña bokk yi siraat allazina anamta alayhim yoon wi nga xam ne yow yàlla moom nga xiiwale gaa ñu baax ña mooy anamta alayhim xiiwale nga ko gaa yu baax ña gayril maxduubi ña nga xam ne merewuñ leen muy mel ni yahuud yi wala daalin gayril maxdubi alayhim ñi nga xam ne merum yàlla dalu ci seen kaw mu mel ni comme euh, yahudiya ñoo ñi nga xam ne ñoom la yàlla mere wala daalin wala ñu réer ñi muy nasaraan yi kon yow yàlla yàlla ñu teg ci sa yoonu jub woowu nga xam ne moom nga teg yonent ya moom nga xiiwal yonent ya bañ ñoo boole ci ñi nga xam ne dañ leen a mere mooy ñan mooy yahuud ak ñan ak nasaraani yàlla buñ bokk ci yahuud ak nasaraani amin bokk yi kon euh, saar bi alhamdulillahi rabbil alamin la wax mooy cant yàlla rek la ñeel rahmaanu rahim moo yore yërmani àddina ak àllaaxira maaliki yawmi diin moom moom bés penc ba iyyaka na'budu wa iyyaka yow yàlla yow la ñuy jaamu yow la ñuy sàkku ndimbal yaa ko jagoo ihdina siraata almustaqim yàlla nag ñu teg ci yoonu jub woowule siraata allazina anamta alayhim yoon yi nga xam ne moom nga xéewale gaa yu baax ña gayri almaxdubi xam ne bokkut ak ñañu mere mooy yahuud yi ak nasaraan yi mbokk yi kon suuratul faatiha lii la indi ci ab tënk lépp nag di wane tawxiid di wane ñaan di wane ak njub di wane jaamu yàlla di wane yaakaar yàlla boor bi subhaanahu wa taala jullit bu nekk nag war nga koo mokkal ñoo ngi ñaan yàlla boor bi subhaanahu wa taala mu dafa ñu tawfiq dafa leen ko Moustapha Mbacké Diouf ngeen ci àndaloon di sant bu baax Serigne a jàll mu nekkoon ci wàllu réalisation bi di sant suñu technicien yëpp salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.